ñun nawetaan tey am naa autorité bu nekk mën a wax ci seen tur te loolu moo am fii ci département bu Mbacké bari na ñoo xam ne nii ay ministre conseiller lañ bari na ñoo xam ne nii ñi ngi takk yeneen ndomba tànk fu suñ bët xonqee ñu dem ci ñoom ay digi kese la ñuy defal mën naa leen tudd fii mais xëy na su ma ko tuddee mu indi leneen mais li may préciser bu mu wóor mooy Gallo ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant te dañoo gis li ngay def moo tax ñu gërëm la ci sant la ci bari na occasion yoo xam ne nii soo teewoon sa loxo mu ñaaw bii ci la bokk parce que ren Mbàkke ñëpp a xam na ni nawetaan metti na fi parce que am na fu jóge fu metti tey ñu mën a egsi kii banaa dañu tëgg final donc su loolu amee ndimbalu yàlla la suñu njàmbaarte suñu taxawaay mais aussi dugal nga ci sa loxo parce que tey buñ ne fête départementale la fête de la jeunesse la équipe yi gis ci seen bopp euh, ODCAV gi ci seen bopp zone yi gis seen bopp ginnaaw yàlla yow yaa tax loolu lii firndeel la ci parce que tey Mbàkke mi ngi am vingt sept ASC e, vingt six ASC e yoo xam ne ni ñoo réaffilié moom daf ne du yem ci vingt 26 ASC yi parce que jàpp na ne suñ naataango yi nga xam ne nii ñoom la ñu wax zone 3 ñu bokk Touba dina leen boole ci fête gi ñu rafetlu loolu sant la ci gërëm lañu parce que inquiétude la woon ci ñun mënuñu am euh, phase départementale ñuy xalaat uniquement commune bi kon ñu ngi la siy gërëm yàlla bi nga xamee ni def na ñu waxtaan si ak euh, sa staff ñu déglu ñu donc apporté ci benn contribution boo xam ne ni muy enveloppe bi nga xam ne nii prévoir nga ko pour jox ko la zone trois donc ñu ngi la si gërëm parce que jàpp nañ ne phase départementale lañu ñu organiser phase départementale warut a yem si diggante Mbacké commune Mbacké rek war na dem Touba war na dem Dalangaabu war na dem Sadio parce que ñooñu ay zone la ñu bokk ci biir département Mbacké kon dañuy bëgg ñu koy jëlaale en compte donc merci lii jéego la def nga ko daaw defaat ko ren su déwénee ñu ngi lay ñaan yàlla defal la euh, euh, lu gën a kawe sa njortu ba nga xam ne ni département bi yëpp dina dina ci bopp. li nga xam ne par exemple dañoo am confiance suñu ASC am confiance comité directeur bi di war a administrer nawetaan di ko gérer ba indi ko fi mu war a agsi yaakaar naa ne ñun ñoo deseel Gallo weccet bi ñu ko war a jox aujourd'hui je que. war nañ mën a taxaw takk suñu digg essayer de fonder le Mbacké du futur ak Galoba je crois que c'est possible donc loolu nag waaw loolu nag dama jàpp ne vision la euh, option la boo xam ne par exemple tey ñun ñëpp dañuy war a inscrire dynamique boobu dans un cadre dynamique unitaire loo xam ne jëmale suñu dëkk kanam sa yaakaar naa fi gone nekku fi donc kon véritablement man tous les acteurs du nawetaan dama lay invité dama leen di invité ñu inspiré wu pratiquement ak li nga xam ne moom laa leen ñu jéem a xool nan la ñuy mën a aussi matérialiser vision boobu ñu am ak vision bi nga xam ne moom lañ am ci ki nga xam ne jàpp ne moom dëkk bi war na koo mën a jëlee fii yóbbu ko feneen loolu mooy suñu gëm-gëm bi ma remercier ñi nga xam ne tey bàyyi nañ seen yite yëpp ñëw ci cérémonie bi ak ñi nga xam ne par exemple ñëpp par exemple tey yëg nañ affaire bi sans autant jox leen invitation ñëw fekkee su maa ngi leen di remercier def na ko donc ñu loolu lañ seq ak e. kon mën naa wax ne par exemple Gallo gàcce ngaalaama je vous remercie de votre sa avez mené un combat épique. Vous avez été brave, courageux et persévérant. loolu moo tax tey lii am wax nga ko sànq nee nga da ngeen ne ci combat àdduna lépp combat la amul lu ñuy mayee <clears throat> dans la vie ça n'existe pas combat bi ngeen nekk c'est une lutte permanente pour l'épanouissement des jeunes de Mbacké te loolu it dama jàpp ne ak nu mënti demee vous avez su garder le moral vous avez su garder le cap et vous avez su garder l'espoir kon ci fànn woowu jàpp naa ne yeyoo ngeen ay cant ak ay félicitations ndax su ngeen yaa fusoon ren nawetaan du am su ngeen yaa fusoon ren final départemental du am waaye li fi jaar yépp gis nañu ko teg nañ suñu bët ren conditions yi mën naa ne réunir woon pour ñu man am final bi gën bëgg final bi Gallo Banane defal waa Mbacké loolu moo liy dëgg ndax avant ñuy finalu wax naa leen ko mosoo leen maa soññ pour final am mosul am maa lay soññ maa lay laaj boo ñëwee jox ma cahier des charges ma ne ko du ma ko xool man du ma may def damay bu ma defal xale yu mbàkki damay def ba fa mu yem rek. kon li ma jël engagement mooy lépp luñ def tey dañoo bëgg ëllëg incha allah ñu def lu ko ëpp. te li bëgg mooy relever le niveau de Mbacké dans tous les domaines relever le niveau de Mbacké au plan sportif. faire en sorte que les ASC puissent produire des talents de, de, de, de grande envergure capable d'amener le sport de Mbacké au plus haut niveau li ñu bëgg tey mooy fexe Mbacké ñu relever niveau bi sur le plan politique sur le plan de la représentation politique tey wax nga ko monsieur le président yéen ñaan yëpp daanaka wax ngeen ko Mbacké dafa tumuranke c'est ça la vérité te loolu ñun ñëpp a ci am responsabilité ñun en ce qui nous amul lu ñu mën a dévier par rapport ak sunu trajectoire ak par rapport fañ bi bëgg a yëg a yeggale Mbàkke amul on est prêt à endurer toutes les souffrances on est prêt à endurer toutes les épreuves on est prêt à faire face à toutes les vicissitudes de la vie pour que ëllëg Mbàkke ñu dëkk fu kaw a kaw a kaw ñun suñu ambition weesu na mairie Mbàkke dama koy wax saa su ne dama ne boo damaa yaakaar mairie Mbacke bii dong du ma ko laaj bu doon budget Mbacke xam ne àggut huit cent millions te boo jëlee budget ba la muy néew néew mënoo ko recouvrer ci at mi revenons mënoo recouvrer ces six cent millions yu mat boo recouvrer six cent millions tu peines à salaire de salaires des des des agents municipaux comment tu peux investir pour la ville mënoo investir parce que l' investissement dafay dafay day des ci li nga xamante ne mooy fonctionnement mais bu dee fonctionnement mën na koo lijjanti ASC yi moo leen a jox seen subvention parce que subvention ASC cent mille francs dañ ko xel bis bu yàlla déggee dëkk bi au moins vous avez trois cent mille francs par ASC. Mbacké nag pour man ñëpp a ci war a jàpp on doit mener le combat ensemble on doit gagner le combat ensemble on doit gouverner cette commune ensemble pour le développement et l'épanouissement de toutes ces populations. kon maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di wax ne lii mooy asaka sunu yéene dañoo bëgg déwén incha allah te it loolu dañoo bëgg monsieur le président l'ODCAV ORCAV qu'on mette la pression sur l'entrepreneur bi nga xamante ne mooy réaliser stade du Mbacké bi dañoo war a fexe mu def li ñuy wax fast track mooy liggéey bu gaaw te ba déwén ci heure bii ma ñëw ñu dem ci stade du bi destinat boo xam ne mësul am Sénégal parce que tey bu ñu jël ay jeunes bu ñu indi El Hadj Diouf wax ak Sadio Mané wax ak ñeneen ñeneen dañoo bëgg non au delà de la au delà de la finale dañoo war a susciter li ñuy wax émulation fexe xale bi football gëm ne moom ëllëg mën naa jógee. fii dem fubal Liverpool ndax Sadio Mané fa mu dëkk Mbacké gën développe fuuf il vient d'un village d'un patelin perdu dans le sud du Sénégal tey moom moo fexe ba ku tudd Sadio Mané sa xel dem ci Bombali euh, Bamba kon loolu mooy jaay sa dëkk loolu mu def nag pour dëkkam ñun dañ koo war def pour suñu dëkk tey dañu war a am des champions am des responsables de haut niveau ci réew mi nga xam ne boo leen gisee wala nga dégg leen sa xel na ci Mbàkke kon nañ leen fexee ba stade bi gaaw pare